ونجني وخله أوسارا وكل من عابني أو مالا إلا يفع سخودا أو مالا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا ربي فلتكفني أسى جميع العالمين وارتقي مساء يا رب العالمين وجل بنائي بنا أوافيا asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd ngeen di ànd ak ñun tey jii nag mbokk yi ñu fas yéene ñëw ak yéen ci liggéey bu am solo boo xamante ne bi liggéeyal sëriñ Touba Cheikhul Khadim la waaye liggéey la boo xam ne ni lépp loo xam ne day tax ñaan gi sëriñ Touba Cheikhul Khadim ci biir dëkk bu sell bi di mën a sotti na mu ko bëggee euh, bokk na ci li nga xamante ne bii moom mooy sabab bi muy liggéey bi nga xam ne kuréel gii di Touba ca kanam nooru daare ni sumb na ko ci biir dëkk bu sell bi di Touba waaye gannaaw xam ngeen ne bi ñu ko taxawalee fukki weer nag ñu fas yéene jublu ci liggéey bi gannaaw ndigal lu xalif général kullu murid Serigne Sidi Muxtaar Mbàkke joxe muy ñeenti barabu fajukaay yoo xam ne nii fas nañ ko yéene tàmbalee seenub liggéey def ko ci biir dëkk bu sell bi di Touba waaye tànn ay gox yoo xam ne nii tumranke woon nañu ko def ko fa ngir jafe-jafe yañ ci daan jànkoonteel mën a saafarawu loolu nag gannaaw bi ci sëriñ bi joxe ndigal ñeenti fan ci weeru safar la ci joxe ndigal ñu war koo tàmbalee nag fii ci Touba Lansar waaye ki nga xam ne moo di sëriñ Mountakha Mbacké moom Cheikhoul Basir ñëw jiite jataay bi muy jataay bu am solo boo xamante ne bii mën nañ ne fépp fu mu teew rek Serigne Sidi Moussa teew na fa waaye yoonu murid itam teew na fa waaye niñ ko waxee léegi ki yore kàddoom te Serigne bi ne mooy léppam di Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr waaye Serigne Abibullahi moom Cheikh Amadou Fadal mi nga xam ne tey jii kenn du wax euh, kuréel gii di Touba ca kanam nooru daara ni te waxuloo ko ndax jàppam xalaatam waaye lépp loo xamante ne bi daf koy jëmale kanam mu jataay boo xam ne nag ràññee nañu fa yeneen kilifa diine yoo xam ne nii ñëpp ci yoonu murit lañu bokk waaye ñoo xamante ne bii ci gox bi ñu fekk si mu di Touba Lansar la ñu bokk bu ñu limee nag njuumte mën nañ cee fekk waaye ni leen ko waxee woon léegi bu ñu nee Cheikh Mouhamadoul Mountakha rek ñëpp mën nañoo dugg ci biir muy lu am solo loo xamante ne bii euh, feeñ na ci biir jataay bi. waaye nag gannaaw euh, teewaayu Serigne Mountakha Mbacké ànd ak kilifa yooyu ñu leen limal léegi ak yeneen i kilifa am na jataay bu am solo boo xam ne moom Serigne Mountakha Mbacké amal na ko fa muy jataayu soññee jëmale ci liggéey bi nga xamante ne bii Touba ca kanam amal na ko tey jii ñeenti fan ci weeru safar. والجل والدجال في سوداني في زرق والمغرب والبيدان وسرما في الأرض طرا والسماء من زائر وباطن اختتما يا لطيف يا كريم يا جليل هامل جميعنا بلطفك الجميل sëriñ bi ne amati nañu mbégte mu rëy rëy rëy. ne yaakaar it gën naa dolli ko mu baax a baax a baax. ci liggéey bi. liggéey bi rek liggéey bi rek moo fi bàyyi. amuñu beneen yitte. ne liggéey bii. am solo la ci liggéey bi ci liggéey liggéey bi dafa rëy lool te yaatu. nee liggéey bi dafa rëy lool lu am solo la dafa rëy te yaatu. waaye lii nag. waaye lii nag. lu ci bari njëriñ la. lu ci bari njëriñ la. nii ñu ko tàmbalee. nee nii ñu ko tàmbalee. ak ni ñu ko sosee. ak ni ñu ko sosee. sos gi mooy. sos gi mooy. ginnaaw. Cheikh Mouhamadul Habib. nee ginnaaw Cheikh Mouhamadul Habib. mu Cheikh Mouhamadul Fadil. mu Cheikh Mouhamadul Fadil. moo ko moo ko moo moo ñi ko ñi ko sos. moo ci moo ci jiitu. loolu. ne loolu kat. mel na ni suñu aajo faju na ci. bëgg ma àgg fa rek. ndax fu mu mu yegg fa rek. dama fa yegg. la ne la ca dolliku. barab bii ñu ko def. barab bii ñu ko defee. nee xool sedd na ci barab bi guy. nee bu woon ci àll ba lañ ko tàmbalee tam. xool sedd ci xel dal ci. waaye nag ndokk bi nga xamee fii lañ ko tàmbalee nag. ci kër Cheikh Ibrahima Sarr. nee loolu doy na sax. nee wax na nag sëriñ Basi yéen a ci wax wax ko ci Cheikh Sidi Mokhtar yóbbaale ma lépp ndax li wax sëriñ Ibrahima ne ko yow mi ko sos ànd ko ñu ko àndal muy sëñ Abdoulaye Habib ak mbokk yi ak taalibe yi foo bëgg mu àgg fa dara faa ngeen loolu kenn mënu ca doon dara ndax ba mu ko waxee rek la ko suñu borom dogal kon loolu soxlawaatu ñaan soxlawaatu fàttali soxlawaatu bu leer la. asalaamaaleykum wa rahmatulah. sëñ bi ñu naan nit ñi ñu rek kenn doon jox lépp nga jël lépp bàyyi sëñ bu ànd rakkam yu toog. mu dem sa xeer bi ñaanal ko yeewu ko ndax yan nga def ci ñun ñëpp taw bu ko defee mu gis waaw. للبر والتقوى بجاي ناسعي وصلي أزكى صلاة دافئة هنا وباء من جراد مانعة jërëjëf jëf mbokk yi ñu dégg kàddu yooyu tukkee ci sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacke moom Cheikh Amadou Bassir waaye tukkee ci Cheikh Amadou Bassir mu sëriñ Abdoul Khader Mbacke waaye nag ci teewaayu mbooleem kilifa diine yi nga xam ne teew nañu fa moo xam muy sëriñ Moustapha Mbacke Abdoul Ahad waaye sëriñ Abiboulaye Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal sëriñ Abdoul Mouhayminu Mbacke moom Cheikh Amadou Moutada ak yeneen i kilifa diine ni ñu leen ko waxee léegi képp ku lim njuum te mën na la caa fekk ba tax na mboolem kilifa yi nga xamante ne bii teew nañu fi lim leen dina jafe lool. bi hurmatil Mustafa il muqarrabi wala li wasabi wasabi rajabi judliya bi taxdimi wa tasdiqi bi hurmatil muqaddimi siddiqi wali yajur bi haqi wa tawfiqi بحرمة موفق فاروق وليام سادة الدارين بأخ عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا الهري kilifa yi nga xamante ne bii teew nañu fi lim leen dina jafe waaye nag mu am ci sax ñoo xam ne itam yëkkati nañu ay kàddu yu am solo ngir fàttali solo si nga xamante ne bii liggéey bii Touba ca kanam di def am na ko waaye tamit soññi taalibe yi nga xamante ne bii ñoo yaakaar ku tedd ki di Serigne Touba Cheikhul Khadim ngir nag ñu mën a tàbbi ci liggéey bi ñoom itam jëf ci seenu ñax ndax xam ngeen ne kuréel gi xalaat bi moo nekkoon dajale ñaari millions yi euh, murit weer wu dee ñu joxe ñaar téeméer muy ñaari milliards at mi war a nekk ñaar fukki milliards ak ñeent ñu dugal ko ci biir dëkk bu sell bi di Touba loolu nag bi ñu ko tàmbaleeg léegi euh, yàggul ci lañu jot ndigal ci sëriñ bi ngir euh, tàmbali liggéey bi ci wàllu wér gu yaram moo am nag ay kàddu yu bari yoo xamante ne bii ay kilifa yu wuute itam yëkkati nañ ko fa. am mbégte mu rëy ci euh, ñëw ci teew ci bis bi nga xam ne moom la mbooloo mu tedd mi taxawal. Euh, di Touba ca kanam euh, mu bokk ci ñi nga xam ne am nañ yéene ak pas-pas ngir seeni yëngatu ak seen yéene lépp ñu delloo ko njukkal xaadim rasul loolu tax na euh, ñu woote fii tey ngir taxawal fii barab boo xam ne barabu fajukaay la loolu nag nekk lu am solo ci diine ndax nit mënula jaamu yàlla te amul wér-gi-yaram te gis nañ ne bu loolu amee Eh, ñu bari it mën nañ cee roy ngir dugal ci seen ñaq ngir mën cee liggéeyal yàlla ndax loolu am solo la ndax nit ki bu amul wér eh, du mën a taxawee diineem du mën a taxawee lennam ci àdduna ndax dangay wér ba noppi mën a jaamu yàlla mën a liggéey loo mën a sàmme sa ngor ak sa diine kon wér gi moo jiitu lépp kon loolu du ñu def lu may am ci mbégte mu rëy di ñaan itam fépp fu ab jullit nekk wala bépp mbokku taalibe murit nga bàyyi ci xel ci mbooloo mi te xam ne liggéeyal sëriñ bi rek moo leen yëkkati euh, ñuy ñaan nag yàlla kàttanal leen ci bu baax a baax a baax te may leen ci ndam te lépp lu ñu ci jëf rek mu dëppoo ngërëmul sëriñ Touba. nuyu ñëpp di siyaare tey jiital ci ndénkaan li sama bopp ndax lii ñu ñëw tey mbir la moo xam ne dafay mel ne dafa ñëw ci waxtoom kon Touba ca kanam waxuma dara waaye tur wi rek. képp ku di jullit wala nga sukk jébbalu day mel ne sa lum doon lu jëm kanam nga ca bëgg ndax boo gisee alxuraan di wax di misaal yuusufa ab yonent la woon was alil xariyata allati kunna fiiha wal xiira allati axbalna fiiha wa inaa la saadixuun wa inaa la saadixuun jooju nag képp koo xam ne bëgg nga caa bokk dafay mel ne war la ci ku ne ku dëkk ci dëkk bi balaa question boobu alxuraan di wax ci Yuusufa ak am ñam ko doon waxal balaa ñu lay posé question boobu nga bokk ci saadi xon boobu mooy dëggal sa dëgg dëggi yi nekk Touba jéem a jàpp ci liggéey sëñ Touba bi rawatina nag liggéey boo xam ne ab sëtam euh, di taalibeem Cheikh Abibou Mbacke moom Cheikh Modou Fadal nekk ca biir jiite ko kon ku ne xam na ne sëñ Touba maamam moo koy liggéeyloo moo ànd kook ay bokkam ànd kook taalibe sëñ Touba yi ñu doole gën a góor góorlu ba résultat bii mu am tey ñu teg xeer bi ñu dem ba di ko indi inaugurer te ñoom ñëpp suñu kilifa nekk fi jiite ñu nu ànd kook moom bay tegaat yeneen xeer ak yeneen xeer ci barki sëñ Touba ñu ngi leen di gërëm leen sant. li wax rek mooy li sëñ Mountakha wax rek ku ci bokkan war ngaa ci gën a góorgóorlu ku bokkutoon war nga cee fexe fexe bokk liggéey la boo xam ne diisul. waaw kenn ku ne xam na ne ñaar fukki milliards ak ñeent mën naa liggéey lu bëree bëri te njaboot suñu tubaab gi ëpp na ñaari mil ñaari millions kon ñaari millions nga mën suñu bokkee di teg weer wu dee wu dee ñaar téeméer at mi day nekk ñaar fukki milliards ak ñeent te yaakaar naa ñaar fukki milliards ak ñeent nag da mën naa liggéey lu bare bare bare bare kon man daal man de nekk naa ci ab Baye Fall nekk doomu suñu Abib bu jaay ak njuram ji nekk ak taalibe fas naa ci yéene dox dox bu baax a baax incha allah rabbi sama maa ngi ci sant bu baax maa ngi ci dox bu baax a baax waaw foo xamante sama tànk bi na fa da nga sama tur bi na fa fas naa liggéey bi àgg fa ci kàttanu yàlla yëmu dem te ñaan ñaanu ñaanu ma yàlla kenn diñ ci mën rafet na lool dégg nga baax na lool yi nag baax a baax a baax baax a baax ba kenn duñ ci man kuñ ci xam-xamim ci kuñ ci jàpp-jàppum ci baax a baax maa ngi ci soñ ñëpp di sañu waa Kaolack gi nga xam xamante ne fa lañ féetee nañ gën a jàpp gën cee góorgóorlu baax baax baax baax a baax fas di jënd carte ci weer wu dee wu nekk dégg nga ñu yónnee loo xamante ni dégg nga maam fa waxoon ne lu ñu mësoon yónnee ci kàttanu yàlla yërmandeem jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf tey di salaat bu baax suñu njaboot ci sax ma sàmb di am mbég ci teewaay bi ñu teew fii tey ci Touba Lansar mu teewaab jaamu yàlla di teewaay dundal sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy bis boo xam dañ ko woote ngir ñëpp ci war a ñëw bokk ci ngir Touba Touba jëm ci kanam ndax Touba lañ am amuñu lu dëkk bu sell bi kon lépp loo xam ne comme ni ma koy waxee rek lépp lu nga xam ne am na Europe dafa war a ñëw ci dëkk bu sell bi war dañoo am ay poste de santé am ay tëli yu rafet am ay espace weer yu rafet te loolu ci dëkk bu sell bi rek la war a nekk kon liñ ciy laaj mi ñaar téeméer dërëm te kenn ku nekk sëñ Tuubaa defal na lu ëpp loolu ñii ngi denc seen million ñii denc lu nekk ñaar téeméer yiñ ci laaj pour Tuubaa jam ca kanam ñoo ngi soññi maa ngi soññi sama bopp di soññi nit ñëpp góor ak jigéen magando rawatina sama mbokki jigéen ñi rawatina fédération yi ak daayira yi rawatina fédération Ahlu Kabe Tuubaa bi ma jiite ñu ñëw ci Touba ci kanam ñu fekk si suñ kilifa yu tedd yi fi nekk sëñ Modou Habib mu sëñ Fallou ak s Rafa mu sëñ Fallou ak kilifa yu tedd yi fi nekk yëpp bàyyi seen lépp jooyal ko ngir Touba jëm ci kanam poste de santé bi fii ñu ko def soxla nañ ko ndax tumuranke na fi lool ak yeneen xeble yi ñu ko bëgg a def yëpp soxla nañ ko te gis ngeen euh, maquette bi ni mu rafetee suñ ko fi defetee lu yéeme lay doon te loolu fii rek la war a nekk kon ñoo ngi ci soññi ñëpp man di ci am mbégte ci bis bi tey man jël naa sama engagement bopp man pour ñëw ci Touba ci kan ak mbooloo mi ma àndal ñëpp waaw. mais man li ma ciy wax rek li ci solo Euh, mbir la boo xam ne dafa am solo am solo goo xam ne lu ñu war a fàttaliku la te lu ñu war a dooleel la te ñëpp ci war a bokk lu tax mooy bu ñu fàttali jumaay Tuubaa ji ci ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett lañ ko defar ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ku ne te ba fii may toog di wax yow ñun ñëpp suñu maam ak coon mais kenn xamul lu ci sama am def kon nag ñun liñ suñu war a gar moo ñu delluwaat suñu bopp ca suñu maam ya lañu la ñu nekkoon jàpp ci dëkk bi taxawu dëkk bi jàppale sunu bopp mais nag waratuñoo xaar dara dara dara dara dara ku ñëw dañ cee war a fekk man loolu mooy sama gëm-gëm bu ñu noppee nag état nag kenn bañul moom mu jàpp ci kenn bañul mu jàpp ci. parce que lii du politique du dara su may ñëw fii damay summi sama mbubu politique sànni ko fële jël mbubu taalibe gi nga xam ne moom laa doon ci Serigne Touba tey ak suba ak ginnaaw suba état nag bu ñëwee ba war cee jàpp danañ ko wax naka lañ koy defee ak condition yi mu koy defee mais nag ñu ngi ñaan nag état ñu ñëw jàpp ci parce que aw yoon la ndax nag nañu waxante dëgg poste de santé yii ñuy def nii Touba da koo soxla te def fee manqué soxla nañu ko malgré ñi ngi fi def hôpital mais nag dañoo soxla ay poste de santé mais moo tax it danañ wax état ñu gën ci jàpp mais xëy na buñ taxawee nag ba programme nag ba magal gi passé danañ gën a xool ak état nan la ñuy def pour ñu jàpp ci parce que foofu la baax ndax fii lañu def lii lañ def Touba soxla ni lii war ngeen cee jàpp daa gën yomb bëgg nañoo def poste de santé bi de lim mën a jëriñ ñun fii ku fi feebar hôpitalu Ndaamaatu ngay dem wala nga dem jannatu wala nga dem ci ci ci kii ci ci yeneen hôpital yi suñ amee hôpital nag suñ dëkk bii kon boobu coono dana fi jóg kon ñun commencé nañ cee gis suñ bopp am nañ ci bànneex di leen ci sant di leen ci gërëm ni ngeen ko tàmbalee yal na ko sëñ Touba eggale yéen yàlla feel leen seen bopp maskani Touba baat misras mi abi jaayi xayri ma nabaat wajal ilaahi maskani Tuuba baat misla ismihaa bijaahi xayri man nabaat wa salli alayhi afdala salaat wa aalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara fa najjini wa xillahu aw saara wa kullu man aabani aw maala بالله فارسخ دنا ومارا وكل من ستمني أولاما فابلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا ربي فلتكفني أسى جميع العالم